ñoo ngi ko jëme ci jàngoro ji nga xam ni dafa dal doomu aadama maa ngi gis sax sànq am na kuy def post naan ndax Covid la euh, loolu dana leer ci waxtaan wi waaye su may wax jàngoro wax naa lu gën a xóot loolu te kooku am jàngoro moom la yàlla dénk aalam bi yàlla taxawal itam benn bis boo xam ni kooku mu dénkoon dana ñëw taxaw yàlla laaj ko li mu dénkoon te bu boobaa du wax di tontu waaye jëfam mooy tontu mu am nag sew-sew yoo xam ni dafa nekk ci jëmm jooju di doomu aadama te sew-sew yooyu mi ngi dellu ci jàngoro yooyu nga xam ni moo ko teg te nit ñi yittewoo wuñu ko te fekk na mooy li ma ta kon waxtaan wi dañu koy jëme ci ñetti tomb benn bi d'abord kan mooy nit jëmmi nit ki nga xam ne si mooy doomu aadama mooy kan suñu xoolee kan mooy nit danañ ci seet yan équation la war a résoudre wala bokk yan jàngoro la ko borom bi teg moom jëmmi nit kooku su ko defee ñetteelu tomb bi nag mi ngi jëm ci xaadimu rasulillahi muy Serigne Touba moom ni mu résoudre énigme boobu ni mu ko résoudre naka la ko résoudre ba nga xamante ni moom dafa yor saafara si muy saafara si saafara doomu aadama ci ni ko borom bi binde énigme boobu Cheikh Ahmad Bamba def ko résoudre walla boog jàngoro jooju nga xam ne dafa daloon doomu aadama moom Serigne Touba dafa doon un directeur spirituel bi nga xam ne dafa saafara doomu aadama te saafara soosu àdduna sépp ñoo ko soxla nit ñëpp ñoo ko soxla man sama waxtaan ci loolu laa koy jëme ba nga xamante ni deuxième partie bi may ñëwee ci Serigne Touba ni mu réglé énigme boobu loolu ci beneen live laa ciy dikk kon live bu tey bi mi ngi jëm ci ñaari point yu njëkk yi rek mooy kan mooy nit ak yan équation la war a résoudre ci ak dundam pour mën a doon remplir bokk mission bi ko yàlla jox te moo tax mu wàcce ko ci kaw suuf si mission bi ko yàlla jox muy mu wutu ko ci kaw suuf mission boobu bala ko mën a remplir faw dafay régler équation yooyu daf koy résoudre ba pare faw dafay régler énigme yooyu tant que résoudre énigme yooyu mënuta wuutu yàlla ci kaw suuf du ko mën moom moom nit ñi doomu aadama euh, loolu nag la ñu bëgg waxtaane ci ñaari tomb yu njëkk yi su ko defee bu mujj bi incha allah ci beneen live lañ ci lañ ciy dikk kon ñoo ngi <clears throat> leen di nuyu mbokk yëpp euh, wax dëgg yàlla mbooleem suñu mbokki taalibe yi suñu mbokki jullit yi mbooleem suñu soppe yi suñu wëlëre yi waxtu wu ne ñoo ngi wootee lan moo tax gisatu live yi euh, bu leen fàtte ne nag Facebook damaa tegoon ay daan ndax dañ maa njëkk suspendre un mois mu jeex ñu dollil ma ci deux mois parce que nee nañ man danger public la te man sax wax dëgg yàlla xaw ma nu ma doone danger public man boo ma gisee damay reetaan rek wax dëgg yàlla ak sama kanam gu lewet lewetlu gii xam nga ni man mënumaa doon danger public waaye lu mën a xew ñoom daan nan ma ñetti weer ni ma mënoo def live mënoo def dara loolu nag moo taxoon gëj a live yi am jéemoon na maa wut sax ay yeneen i euh, jumtukaay euh, pour man ci def live waaye finalement audience bi daf dul woon bari moo tax ma ni naa bàyyi ba daan yi kii rek xam na yàllaa ko bëgg woon noonu kon ñu ñëw ci sunu jëmmi waxtaan wi waaye ñoo ngi nuyu ñëpp. waxtu ne ñoo ngi woote di nemmiku lan moo tax gisatuñ live yi lan moo tax live yi dikkatul waaye loolu rek moo ko waraloon du dara ak itam euh, yàlla dafa dogal xam-xam di lu yaatu te biir xam-xam googu li ci doomu aadama noonu xam lu tuutee tuuti la ba tax na képp koo xam ne dangay wax sax nit ñi di la déglu maanaam ñi lay déglu dégg la naam bari na ci ñoo xam li ngay wax ñoo la ko gën a xam am na ci ñoo xam ne li nga xam xam nañ ko xëñ na ñàkkul ni am na ci ñoo xam ne yaa leen sutus lëf tuuti ci xam-xam waaye am na leneen lu bari lu ñu xam te xamoo ba tax na kon euh, wax ji mënul di bari ñaareel bii tamit dangay gis ni waxtu wu ci nekk da ngay remettre sa bopp en cause ci man kat ginnaaw dem naa ba yegg ci dayo boo xam ni foo daje kilifa mun la déglu naa la muy kilifa yi nekk ci diine yi moo xam ñoo ngi ci tarixa yi moo xam ñoo ngi ci association islamique yi moo xam ñoo ngi ci wàllu euh, geneen fànn gi moo xam ay kilifay aada lañ wala kilifay euh, état lañu wala yeneen dangay gis koo ci dajeel ñu lay présenté kooku ni la man suivre naa la tel jour mais vraiment j'ai apprécié nangam ak nangam loolu da ngay gis ni aw sas da ngay daal di mujj tiit sax ni man ñi may suivre ñëpp ak ni ñu wuutee ci gis-gis ak ci xalaat ak fi ñu jaar ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk am benn capital sympathie bi ci yow kon nag bala ngaa waxati war nga ko waaj war nga ko waaj bu baax parce que non seulement yàlla rek a tax ngay wax waaye war ngay bàyyi xel kenn ku ci nekk ni nga koy ñi ngay waxal ba doo leen heurter ndax nit ñi dañoo bari ay sensibilité nit ñi dañoo bari ay ngëm-ngëm nit ñi dañoo bari fi mu nekk nii loo xam ni dafa bokk ci ñoom kenn ku ci nekk nompaadu moom moo tax ngay wax sax waaye nag da nga ko war a bàyyi xel ginnaaw mi ngi am lu tuuti tuuti lu muy jariñu ci yow war ngaa bàyyi xel loolu ba doo ko heurté ba ki taxawoon fee ëllëg ni la man de sa soppe la ëllëg ak suba du taxaw daal ni ah man de am naa rus naa wala bett na ma loolu lu mat a bàyyi xel la moo tax wax ji moom xam naa ni danañ koy gën di néewal ndax xam-xam yaatu na te li ngay wax ñu la ko gën a xam rek ñoo fi ñoo fi nekk su ko defee sunu waxtaanu tey ñu ñëw ci tomb bu njëkk bi tomb bu njëkk bi muy kan mooy nit euh, nit dafa bokk ci yi yàlla yi yàlla mooy ki ko amal xëñ na mënees na cee wax lu bari waaye su ma yemee foofu rek doy na yàlla mooy ki ko amal mu bokk nag ci mbindeef yu bare bari yoo xam ne am na yu ñu ci xam waaye am na yoo xam ne it xamuñu leen te mboole seen yooyu yëpp yàllaay ki leen amal boroom bi subhaanahu wa taala wax ñu ne inna xalaqna al insana min nutfatin amshajin nabtalihi fa jaxalnaahu samihan basiran teg ca inna hadaynaahu sabila imma shakiran wa imma kafura yàlla mooy ki bind doomu aadama ci am njaxas am njaxas nit doomu aadama créature composé la am njaxas la yu bari la yàlla def ci moom yu bari la boole def ko ci doomu aadama nga xam ni mbindeef yu bari yu mu amal yàlla daa boole yooyu yépp doomu aadama doon ki nga xam ne si moom moo leen boole mooy seen tënk mooy seen résumé moom moo leen ëmb ñoom ñëpp nga xam ni <coughs> daanaka mënees naa wax ni lépp mi ngi ci doomu aadama njaxas moomu ko njaxas tey dem nañu ba am xam-xam ci ni am nañu wax ni nit juróomi jëmm la am ñu wax ni juróom-ñaari jëmm la yooyu nag duñ tax ñu taxaw ci rek waaye dañuy dëggal lii nga xam ne moom la yàlla wax am na ñu wax ni doomu aadama am na juróomi jëmm am na lu ñuy wax la corps physique ñu def anatomie biologiste yi xam nañ loolu muy sama jëmm ji nga xam ni sama làmmiñ sama kàddu mi ngi wax maa ngi gesticuler samay loxo di ko yëngal ngeen di gis bu ngeen xoolee sama xar kanam xam ne ni kii diw sàngam la loolu jëmm la ci doomu aadama mooy le corps physique ñi ko classifié dolli ci nii it am na beneen corps muy la corps astral am beneen corps muy la corps mental am beneen jëmm beneen corps boo xam ni c'est le corps éthérique ou bien le corps vital am juróomeel boo xam ni moom la ñuy wax la corps de l'âme ou bien la corps le lotus égoïste ñi nga xam ne ñoo ko classifié ci juróomi jëmm ñoom loolu mooy li nga xam ne moom la wax am ñeneen ñoo xam ni nee nañ doomu aadama juróom-ñaari jëmm la ndax lan am na lu ñuy wax la corps physique damay dëggal rek borom bi li mu wax ni doomu aadama am njaxas la am na la corps physique waaye tamit am na lu ñuy wax la corps éthérique nga xam ni corps physique bi moo ëmb corps éthérique bi waaye corps éthérique boobu dafa mooy corps bi nga xam ni moom mooy nekk en relation ak beneen jëmm beneen corps boo xam ne si euh, corps éthérique bi en fait mooy la corps de la vie dafay nekk en rapport avec beneen corps boo xam ni moom la ñuy wax la corps astral wala boog la corps émotionnel corps astral boobu wala sa corps émotionnel nga xam ni nit ki waxtu wi muy sosu biddiwoom bi feq et cetera dafay am rapport ak moom muy lu complexe lu compliqué yoo xam ne doomu aadama weesu na ki ngay gis mu jaar nii rek jàll fa gën naa compliqué loolu gën naa xoot loolu. am sa corps la qu'on appelle en fait le corps astral wala le corps émotionnel mu am rapport avec ce qu'on appelle le corps mental ou bien le corps de la réflexion corps mantal boobu am rapport avec ce qu'on appelle le corps causal. mi nga xam ne si mooy le corps de la mémoire lointaine ñun ñi ñëpp kenn ku ci nekk dangay ngay jàng alxuraan borom bi di la nettali lu bari ba ñu bindee ba ñu sosee nangam ak nangam te loolu fàttalikuwuñ ko fi mu nekk nii diirub aadama di wàcc tamit ñoo ngi woon ci biiram te lim fi doon dox lépp fi mu nekk nii fàtte nañ ko ba alxuraan yi ñëw fàttaliwaat ñu nettali ñu ñu soog di rappelé wu am na ci ñoo xam ne duñ rappelé wu sax dañ koy gëm rek donc muy le corps causal c'est le corps de la mémoire lointaine maintenant ce corps là nag moom moo nekk en rapport avec ce qu'on appelle le corps dikk ou bien le corps de la connaissance muy doomu aadama dañ koo waajal wàccaay woo xam ni nit ñi exploité nawu sax la un centième exploité wuñ ko ci li potentialité yi yàlla waajal ci doomu aadama la un centième exploité wuñ ko te sa un centième là suñ ko exploité woon rek dana dox ci kaw ndox danañ jaar ci kaw jaww ji di dem waaye malheureusement ñoo ngi ci ay débat yu terne ay débat yu terne ay débat yoo xam ne jëmalewuñu fen ñoo ngi ci wut àdduna ak yu demee noonu nga xam ni dafay tax corps yooyu dinu gën di jege malheureusement seen vibration yi ñu waroon am fi mu nekk nii dafay daal di faible le corps ce corps nag de la connaissance là nekk en rapport avec ce qu'on appelle le corps atmique ou bien le corps de la conscience cosmique nga xam ni loolu nit ki su demee ba yegg foofu daanaka da ngay gis ni mën naa wax waxin woo xam ni nit ñi ferul iji jànguñu yépp fi mu ne mën nañ koo dugal ci wax ju garaaw ju rëy yoo xam ni waaye fekk na la mu wax euh, ku ca àggul àggoo ci alors kooku loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy doomu aadama ñii classifié nañ ko en cinq corps ñii classifié ko en sept corps ñàkkul ni xëy na am nañu ko classifié ci leneen waaye loolu li ma ci jublu woon rek mooy borom bi subhanahu wa taala moom mi wax ni inna xalaqna al insana min nutfatin amshajin nabtalihi maa bind doomu aadama ci am njaxas pour lan nag pour éprouver ko pour l'éprouver épreuve boobu nag mooy dëgg-dëgg équation yi ñu war a résoudre te doomu aadama yi xamuñu ko sax ñoo ngi ci yeneen yoo xam ne amalu leen njariñ boo jëwee sa mbokk waxuma sax sa mbokkum jullit léegi ban njariñ la la amal yow te wax nga ci moom loo xam ne si rafetul lu ñaaw loo xam ne si bu ko déggoon dana ko naqari toog nga ci nit romb la yàlla defal ko xéewal nga ni kii lan moo tax muy am xéewal boobu yow yaa ngi dugg ci gaam bu garaaw garaw ndax lan amatoo problème ak nit ki waaye yaa nga am problème ak yàlla ndax ab dogalam nga am am problème nit ki xéewal gi mu am yàlla moo ko defal ba ci feneen fu mu mën a jaar sax nit mënta jot ci lu yàlla dugal donte da ko yàkkamti woon sax ba jaar ci leneen waaye nañu xam ni bu ñu fàtte ni yàlla moo yor dogal bi te amul lu mën a am te du dogalu yàlla nit ñi it nañuy bàyyi lépp lu ñu xamul weddi ko wala lu ñu amul ni kenn mënu koo am lu ñu xamul weddi ko wala lu ñu amul ni kenn mënu ko am nga xam ne dañoo limité yàlla restreindre ko ba yàlla moom dañ koo def finalement koo xam ni dafa am lu mu mën am lu mu tële loolu yi tamit lu mat a bàyyi xel la ndax su fekkonte ni ñun dañoo xam tey waaye wallaahu a'lam wa antum laa ta'lamuun yàlla mooy ki xam ñun xamuñu ñun xamuñu koo xam ni yow xamoo nag te leeral nañ la yow sa euh, nature ci ñàkk xam kooku wax dëgg yàlla bala ngaa di war nga koo waaj ñaar fukki junni at di ko waaj di ko waaj bu mujj bàyyi ko ndax doomu aadama moo xamul te pénétrer en fait les mystères divins képp koo xam ni yaa ngi exercer wu ci loolu am na yoo xam ne too ko tal am na loo xam ne doo ko wax mukk sa làmmiñ aussi ñu dégg ko mukk doo ko wax ndax cette présence divine là moo lay imposer lool moo la ko imposer euh, nañu seetlu rek par exemple tey misaal mi man nañ ko def ci suñu réew mi ba ci réew yëpp sax foofu man a dem ñun ñëpp ay citoyen muy civil bi muy militaire yi waaye ñun sañ-sañ bi ñu am ba ci ku ci doon liggéey ci administration wala ngay liggéey ci privé bi boo fa amul lu la neex sañ ngaa ñaxtu waaye armée bi moom la ñu tuddee la grande muette am na loo xam ne sañuñu ko moom kon képp koo xam ne soobu nga ngërëm yàlla am na loo xam ne nit ñi danañ ko sañ waaye yow danga ko dul sañati loolu nag particulièrement maa ngi ko jëmale sama mbokki taalibe yi moom ñoom laa jëmale wax jii nit ku sóobu am na loo xam ne waru koo tal doo dégg te doo déglu ku lay saaga mbaa di la wax wax ju ñaaw ndax danga ko dul tal sax ku sóobul nag man waxuma ko waaye ku xis sóobu te su ma nee murit maanaam lu yaatoo yaatu la ni ko nit ñi jàppee demewul noonu waaye ñi nga xam ne soobu nañ mandiñ te kii seen yitte mooy seen borom subhanahu wa taala ñoom ñooy murit ñooña nag am nañ lu leen doy sëkk ci régler ko ndaredu di nekk ci ay débat de bas étage jamais duñ ci nekk parce que duñ ko dul tal sax ndax cette présence divine là ak loolu ñu ñam ci yàlla mooy tax am na loo xam ne mënatuñ ko mënuñu ko wax ba mu naqari leen wala mu mu metti leen ni ko sëñ Blade waxee woon rek nee na bu nit defee bu ngeen gisee ma mer nee na dafa dama gis nit ku def lu naqari yàlla rek waaye mer ma dama koy gàttal waaw ah, dama koy gàttal ndax lan <coughs> innal mujrimina muntaqimun kon <coughs> loolu dafay lu am am solo ci nattu boobu yàlla bi amal doomu aadama ci nature bi mu ko amal rien que pour l'éprouver war ko éprouver nit ki war a trouver maintenant en fait résoudre énigme boobu nit ki moo war a résoudre en fait cette énigme là maintenant naka la ko war moom mooy ñëw ci deuxième partie bi incha allah ni ko Cheikh Ahmad Bamba moom defee ni mu ko proposé ak ni mu ko réussire te képp koo xam ni si yaa ngi koy dégg war a fexe xam loolu jëfandikoo ko pour ma ne ak sa borom loolu moom mooy li am solo alors kon loolu di ci lu am solo kon doomu aadama gis nañ ni borom bi moo ko bind mbindeef la gis nañ ni yàlla da koo bind ci nature. bu composé aussi am na luñ ci junj waaye gis nañ aussi ni yàlla du ko bind ci mu niiw doole doomu aadama yàlla du ko bind ci mu gaaw a fàtte loolu nature humaine la kooku nit ñi kenn du ci dara yàlla moo ñu bind noonu dañoo néew doole léeg-léeg nga sonn léeg-léeg nga tàyyeel dañoo gaaw a fàtte et cetera et cetera daxif ajal et cetera et cetera waaye tamit yàlla binduñu ci xamuñu lu bari te d'ailleurs mënuñoo xam sax lu bari doomu aadama mu bind ñu aussi li ëpp ci nun bu ñu daje woon ñëpp maanaam li yàlla bind ci nit ñëpp bu ñu daje woon ci barab la ci ëpp duñu xam yàlla moo ñu bind noonu cest loolu loi naturelle la yàlla moo bind noonu kenn du ko soppi kenn du soppi ni yàlla doxale aussi noonu la bindee li ëpp ci nit ñi xamuñu te li ëpp ci nit ñi duñu xam xamuñu li ëpp ci nit ñi aussi gëmuñu mooy walakin aksara naas yooyu ngay gis rek laa yafaluun laa yuminuun laa yashkuruun et cetera li ëpp ci nit ñi l'écrasante majorité des individus des gens gëmuñu xamuñu santuñu gindikuwuñu jubuñu loolu la yàlla dogal te kenn du soppi dogalub yàlla lii mooy li yàlla dogal te kenn moo dul soppi dogalu yàlla li ëpp ci nit ñi xamul beneen bi nga xam ni moo ci topp yitam <clears throat> mooy borom bi subhaanahu daldi dogal ñi nga xam ni faf dañoo gëm ñi gëm la ëpp ca ñoom ay faasex lañ li ëpp ci ñi gëm ay faasex lañ boo xoolee borom bi subhaanahu wa dafa boole benn laaya njabootuk yonent ci yàlla ibrahima ak nuux fa minhum muhtadun wa kasirun minhum faasiqun am na ci ñu ca jub waaye la ëpp ca ñoom la wax ay faasiq lañ te loolu mu wax itam moo valable ci njabootu yonent bi moo valable ci ñeneen ñi des ñépp bu dee njabootu Moussa nag moom foofu gëmuñu la wax gëmuñu bu dee njabootu Insa yi tamit la même chose la ci wax fa aatayna alladina amanu minhum ajruhum wa kachirun minhum fasiqun kon nag loolu ci boppam mooy la réalité li nga xam ne moom mooy yàlla loolu mooy li am mooy kon ñi nga xam ni sax gëm nañu te nekk ci école bu baax mooy dajeeg Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam wala dajeeg Isa ibnu Maryam wala dajeeg Moussa kalamullah wala dajeeg Ibrahima xalilullah mboole seen kulluhum ñoom ñoom ñëpp am na ca ñu gëm am na ca ñu gindiku waaye la ëpp ca mbooloo yooyu ay faasix lañu lii mooy dogalub yàlla aussi alors lan mooy waral loolu nag ko loolu mooy li mat a jéem a lijjantee xam lan moo tax loolu di am lan moo tax yàlla nature bi ñu bindee ak mission bi ñu charge wàcce ñu ci kaw suuf ak lay yooyu yëpp xëy na duñ ci dikk tey jël ay ndawam yónni leen waaye ña leen di toppit nga xam ni gëm nañu topp ñu seytaane la ëpp ca ñoom ay faasar leen loolu nag moo mat a lijjanti mais pourquoi nit ñi kon defuñu fokki ci lii mais nekk ci xasante koo xam ne yéen bokk lépp euh, ŋàññante xeebante ak yoo xam ni nag moom daa ëpp sax ci ñett ëpp na di ñett kon gis nañ ni li ëpp ci nit ñi duñu gëm te ñi gëm li ñuy doon minorité tuuti tuuti lépp parce que actuellement le quart de la population mondiale ñoo doon ñu gëm ñu nekk ci l'islam 21 virgule 79 pour cent ñoom ñoo nekk ñu nekk ci l'islam donc c'est le quart de la population mondiale kon ñi gëm ñoo gën a tuuti waaye ci biir ñi gëm itam boo xooloon la ëpp ci ñoom ay faasex lañu loolu mooy dogalu yàlla alors lan moo tax loolu di am man je pense que ni voilà la question bi nga xam ne moom la ñu war a poser lan moo tax loolu di am li tax muy am ndekete lu simple la lu nit ñi war a xam la te loolu ku ko xis xam da ngay daal di nekk ca la nga war a nekk pour régler sa problème bii ndax yaa ngi mel ni un candidat à un examen examen bi résultat yi bis penc lay génn yow nga dem ci salle d'examen bi muy àdduna ñu jox la ay épreuve ngay liggante kuy tricher ku tricher wul ku présent ku dikkul ku toog ni mu toogee baaxul ak na mu nangam te yow réglé woo sa épreuve yi ñu la jox te le temps est compté xamoo kañ la ñuy nangu feuille bi. maanaam élève bi dafa am examen dugg ci salle de classe bi mooy àdduna ñu jox ko épreuve mu tey épreuve bi au lieu mu jéem a régler épreuve yi ñu ko jox tontu ci mathématiques yeeg science physique yeeg yi ci des moom defu ko mi ngi xool. waa ji élève benn mu toogi lan moo tax mu toogi nii kee li tax mu tislu kii li tax mu soloo nii kii li tax mu dugg ci table ji nii kii nangam nangam nangam nangam moom ba ñu nangu ab fëyam kooku lan lay wax ëllëg te ak li ma wax lépp ci nature humaine ni ko yàlla binde nga xam ne li ëpp ci ñoom du ñu gëm bind nañ leen ci néew doole bind nañ leen ci duñu xam lu bari waaye surtout ñi ca gëm sax la ci ëpp ay faa faasix la ñi ca gëm laa wax ba ci njabootu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ci ëpp ay faasix lañu kon nag mbokk yu tedd yi yéen ñi nga xam ne ñoo bokk li ñu bëgg ñoo bokk li ñuy wut te ñun ñépp ngërëmal yàlla rek la wut ay waaj yi lan moo fi jaar sunu diggante am ñagas-ñagas bu fiy dox xanaa kañ laayante biir rek waaye nag am na ay débat yoo xam ne waruñu ko sax di ko seq ndax dëgg-dëgg kenn ku ci nekk ndeke diggante mbir mi yow la ak sa borom ndekete kenn ku ci nekk yow la ak sa borom alors li waral li ma laajoon sànq kon lan la bu ngeen demee ci suratul munafiqun bu leen neexee mën ngeen a ubbi ku ci tiim sab téere nga ubbi ko borom bi alayhi salaatu salaam daf ci wax ni isa jaaka al munafiquuna xaalu nashhadu innaka la rasulullahi problème bi yëpp mi ngi ci baatu nashhadu googu nga xam ne ñeenti arab la li tax ñooñu naafiq yooyu seen seede soosu dafay dellu ci nifaq moom mooy doon deuxième point bi ñu jàngal mooy doon jàngoro ji nga xam ni doomu aadama yàlla moo ko def ci doomu aadama te bokkul nag ak yama la doon wax sànq ni yàlla moo ko bind ci néew doole yàlla moo ko bind ci nit du xam lu bari nit mënta xam lu bari ndeysaan Cheikh Abdou Lahad wax na ko ba tey nee na xam-xamu yàlla mënta dem ci nit mënta nekk xam-xamu yàlla mënta dem ci nit nit lu tuuti lay xam ba noppi di baj baji nit tuuti lay xam wa ma utitum min hilmi illa qalila <laughs> nit tuuti la mën a xam tuuti ba noppi di weddeeka saxalaka lu ne mu dugg ci te fekk na l'essentiel occulté na ko occulté na ko te wax naa leen la bonne école mënta weesu yeneen yi mais mboole seen seen mbooloo yooyu ñu tuuti ñoo ci gindi ko ñu tuutee ci jubóol ñu tuuti waaye nag wa kasirun minhum faasixoon la ëpp ca ña leen toppoon ay faasix lañu te loolu yàllaa ko seede xam nga ni wax yàlla du deñ kenn du dindi wax yàlla waxi yàlla du deñ mukk mukk mukk mukk mukk Cheikh Abdoul daf dafa daan wax ni bu ngeen gisee yàlla di wax di waxaat dara warul ko ludul dafa bëgg a xamal ñëpp ni li mu wax rek ay am te li mu wax rek mooy am te dara du am lu dul li mu wax te mënta am lu ko waxee itam nee na moo tax muy wax di waxe waxaat li yàlla wax rek ay am te leneen du am lu dul li yàlla wax te dara mënta am ndare du li yàlla wax te du am lu dul ni mu ko waxee